non mais comment ça fait-il may livré lu ma xamul lijjanti saag eh, mais lan laay yóbboo lu ma xamul Omar tof tof ci temps bi nga nekk tof bi nga nekk nga war a bàyyi saag bi ci nekk xam nga ko bu baax kon daal jàng bi je pense que damay arrêté quoi la bàyyi jàng yow sax lan moo njool ñi xam nga sax sikkin ñu ni mais yorul sax kanamu bàndi mais nga dëgg la. parce que cinq kilos nekk ci biir man deux laa soxla ma bàyyi la nga def lu la neex parce que xam naa ni. yaa ma ko yónni depuis deux jours mu lay kóol nga jotuloo nu mu demee noonu. waaw ah, dama toroon suñu kër gi. waaw lii du kóol. dugul sa yoon de. su ko gars yi livré la livré ko ba léegi saag bi anam. sama gars bi maa ko suul saag. grand bi day ñëw tuum saag bi war nga ko livré avant muy ñëw. wax na ma ko. kabay nakal góor. téye ma ba heure bi किया ना इधर अगर मंगल को यूज़ करना है मैंने तुमको क्या पुकारा क्या क्या पुकारे तेरे मुकुल को मिलने जाओ ऐसे बिजनेस तो बहुत मिलने के लिए अब तो नाम तो मस्ती तो कौन है जाग जार ना फिर नोवर ऐसा मुकुल है बोल दो किलो ला सकला बिजनेस हमने यार दो साल हुए हम्म ma xewee maa ko dóor mais dóor gan bi moom fekkewu ko kon bi nga kon moo tax mu xam ko doon moo ko décrire sa kanam bu cool bi description rek daa tax ma xam ne man la déjà doon xaw ma amul certitude carrément ñu yow la mais doful xoolal noo koy gérer bu gaa yi xam ne dóor saa yi réseau bi dina cool ci ñu côté. na amul danger naa gérer loolu. no no no no no no no no no no no no normal no no no no no man no no alal mais pas comme no no no no am problème no no no no no no no no no no no no no no Oui, entrez. Salam alaikum. salam. ça va Ça va bien, Ça va bien. Ça va, bien. Ça va bien, ça va bien, bien. Sinon, le Bon, hein. mhm. Lui, c'est Alpha, mon ami quoi. ici Ouais. Mhm. contrat d'expulsion comme nous l'avons semaines beau il parce que yow war nga xamné man dëkk na fi 5 ans amna lo xamanteni su amé yow war nga mën a dawal yërmande quoi dawal compréhension mais pa ngay ñëw na am ay huissier je sais pas dans deux semaines ngay génn soo fayul affaire yoy noonu yow waroon nga mëna def lénen lu dul loolu quoi wala so dañ bay jël décision sax nga ñëw nga prévenir ma tabit à l'avance ma xam mais ñëw ni rek huissier da ngay génn loolu rafetul quoi sama digënté ak yow amax li ngay wax li fi yépp ah di ni yépp amul sens xam naa yow do sante may 4 mois 4 mois may nañ te fay temps mais kan ba non lol lol du problème xam nga ñi may wax non duñu man té man duma situation mo waral parce que dëkk fi 5 ans je t'ai dit musuma lay donc tay su ne man ko bëggé la so fi ñëw do fi sax ñëw bay donc te man ak papa lu rafet rek lañ sec. yow waroo ñëw ti wax ni yenn wax yi xam nga arrogance bii nii jaru ko fii quoi. voilà seen wax ji yëpp dégg naa ko quoi te Lune expliqué na ma lépp Lune il m'a tout expliqué te en plus lire bi te dafa mel ni ça fait mois fa yow te xam nga ni loolu yoon. daal may na la euh, deux semaines soo fayul rek tu seras obligé de sortir y a de choix contrat baa ngi. d' accord d' te et puis na la leer na ni ah bi nga ma fiy gisaat. moy jour boobu ngay génn gàlle bi leer na Ya Belita. Comme ça. Ça va, Nico. I'm cool. Ça Nice. Affaire nak. Ça va. Nice. Cool. voilà en fait dama la soxla woon quoi pour benn business. ok muy la. loolu yaa ngi gisante ak moom ba léegi. yow eh, sànq rek ñu nekkoon naa. voilà cool na foofu. da nga ne sac boo grand bi joxoon gars yi dañ ko moom. ban sac. depuis quand. temps yii passé. loo mais man doon tegaluma dara de. non loolu nekkul lu ñuy waxee. sac bi sax du problème man Zaka mooy sama jàpp instant bi nii. ah ok Zaka defee naa boobu moo jël sac bi.

moo yónni beneen booy ñëw fekk foofu ron tuur ko lëndam jël sac bi yaa ngi ah, mu ah defee loolu ba pare nag si la gëmloo gars yi ni man la Zaka gëmloo gars yi ni ko yow la quoi voilà noonu la ko dégg léegi man wax ma lan laa lan lan ma sama job quoi ma job ko vite fait mission rek laa bëgg nga doxal ma ko si ok ay dem gis roon mhm. ak fexe ba setal ma si affaire bi nga xamal ni ko Zaka si boppam moo yónni booy bi mu ñëw agressé ko jël sac bi man sama yoon nekku ci affaire bi quoi xoolal noo may séddale ci business bi ñu jël. Siteu est-ce que xam nga dara. waaw. ron war la quoi. dafa demee nag. mooy bopp la aussi. dafa demee mais suñ ko dinaa ko gérer dinaa dinaa dinaa kii dinaa wax ak moom. mën nga dox loolu. non naa ko dox vite. naa ko bàyyi sa loxo de. waaw nooy na nooy na nooy na. daanu foofu. nuñ kuul. ah man maa ngi tax a jóg. ngi daw waaw baax na foofu noonu nañ déggante. ok nice nañ déggoo. cool ok. voilà. ça waaw de yalla la fi indi. yaa ngi ça va bien ça va lu la tëree école temps yépp ma la fay wax. waaw fan yii dama nekk si benn concours moo tax it de war naa la fa ba sonn. dama amoon problème bu rëy ci duwaar a ma fexe ba comprendre ko doo expliquer nga jàpp si suba boo ñëwee école. waaw suba nag dama ñëw école lu tax. pare goma léegi maa ngi si kii bi concours yi. Ah, dëgg. concours yi de parfois baax. mais dinaa la jox sama téléphone nga jox ma sa numéro comme ça ñu échanger ci WhatsApp dama ko perdre. d' accord.

ak gis nga temps ñoo ci di taxale rek hmm. comme moo gën gaaw may manike boo hmm. ñëwee ñu plongé ci ba mu jeex tàkk ah, loolu la oui ah kon mu ngi nii rek nag si waajtaay examen yi am gën xam mooy loolu mais wol naa dañ ciy génn sama intérêt nga ah école ko rek ñu def yow leneen hmm. Ah, la poussé ci ah, dama job job ñu chambre dañ ko fay sama grand frère mu ngi nii ut job amul job école dañ maa daax ndax fay ma loolu yëpp la ñaa yooyu yëpp xam nga moo tax ma bëgg a ut job xam nga ñoo dugal ma si business yi yaa ngi yor yaa ah, nga dugal ma si business bi grand yow yaa ngi gën a xam kon yaa ngi doon xam ne waaw am benn njëriñ hmm. waaw grave grave problème sama boy la xam naa intellectuel nga quoi li ngay job ni war nga ci mën a dugal mu seetaan léegi dinaa la jéem a call après comme maa ngi sa numéro téléphone. Oke duñ boole maa yow quoi. ah ok bon. ah baax Oke. grand Oke. Oke. déglu. non naa la call ma call ah. ok ñoo fa. ok ok Pod. Hello, Bo. Gis eh, bankal. yow kon yow depuis kañ nga ma commencé nëbb. ah booy na balaa ngaa xuloo xanaa nga nuyoo sax booy. fii ay nuyoo moo fi jeex. am na loo ma waxul te man sit naa rek ni mu demee. eh fils lu ñu fi indi ba amatul ah booy fils yow dama la na moon booy naka la lépp eh, ko. eh du dof. saag foo déggee wax sànni. Fall fii dañ laa dóor yóbbu sac bi booy yow pourquoi yow dama segal da xam ku dóor sac bi waaw la déet. maa xalaa wadd nga rek si boo sax business bi commencé à fonctionner booy. nan laa ko war a comprendre. sac bi sac moo ko dóor. yow faire bàyyi fen la ma mënee dóor je booy bi ma gis ko bu baax nga naa ma dafa mën Je Sago je comprends rien lan laa lan comprendre. nest pas Zak, moo a de affaire yi non. Il ñëwul ñëwul léegi. moo yónni booy bi pour ma agressé la nekkal nit. Mahal lah yau enggak akan rek Ouais bro, kenapa bukan nous sah? ça. Ah ben là, les ça va. Alhamdulillah. Les jam hein. Oui, ça tient. Ah mais non non non non Ah mungkin ngi kër ga mu ngi Kamu Diam. Mu la bëgg rejoindre bi après ça. ya? Oui, je nañ ma deux mois. Hmm. mais je ko utiliser. pas hmm. saa C'est dama nekk situation quoi. ah d'accord ça saa yi Mais plus non. waaw ah, utiliser donc mooy loolu. Hmm. Ah. léegi yow à vrai dire mille laaj soxla woon. mille ah, mais tu sais yu bestak yi bon na ci ay donc. dafa il faut nga kii ah il faut parce que xam nga rek yaa gis gisoo bilan bi dafa xoosu yi donc il faut nga wàcce prix rek. loolu moom du ma arrangé hmm. parce que man lii bu bees tàkk la mosuma ko utiliser. baa ma jox la xoolal pour ñu bañ a discuter ma bañ laa tardé et puis war naa dem ci madame donc baa ma jox la cinquante rek baax na ma jox la cinquante yoon naa fi cinquante bu dëgër boo xam te ne mën naa la ko jox jàpp si comme situation lay tuut nga réglé say say cinquante ticket moom grand du ma arrangé quoi parce que su ma ko naree jaayee cinquante ticket moom may la ko quoi. mais bon ko kon kon baax na baax na baax na boobu baax na su ma la moom mooy loolu donc comme danga ma situation et tout mm. mooy te tàmm sama brongo euh, que noonu la mm-hmm. mm-hmm. a xool leneen mm, dëgg na yàlla bëgguma ko jaay loolu du faju ah moo la gën a ah? la. parce que instant yii moom loolu moom du ma arrangé quoi. Ah. dëgg neex yàlla ah mais Thiol mais Thiol bëggoon naa si jàpp de vraiment xam nga rek mooy loolu yow cool brother nga bëggoon naa si jàpp et tout mais la. ah mais garaawul ah. garaawul xam naa beneen yoon peut être sama wërsëg nekk si quoi. waaw dëgg la mais na la jar ak jàmm. amiin amiin yàlla jaajëf rafet jaajëf merci beaucoup jaajëf waay. Amina bon waxal sa grand bi ne ko pour affaire am bi j'accepte quoi.